lu ñuy def alhamdulilahi rabbil alamin mbooloo mi asalaamualeykum wa rahmatullah tey amuñu kàddu kàddu gi ñu am rek mooy sant senegaal gërëm leen ñaan yàlla yàlla musal leen te mosal leen di ko commencé ci njiitu réew mi parce que lii suñ ko mënee def mu àgg loxoom a ngi ci biñ ko ko gaaralee xaay bu bari la yëkkati def ci yónnewaat tey defaat ci dara li ñu fayoon ci saal bi ak li ko wër yépp mun nañ ko annulé delloo ñu ko kon président ñu ngi koy sant di ko ñaanal yàlla fépp fu mu bëgg a yóbbu réew mi yàlla na ko fa yóbbu di ñaan yàlla ci barki bés bi weer wi eh, réew mi yàlla na am jàmm kàddu gi dafa gàtt te 14 la téléphone la télévision yi dagg te bëgg nañ li fi ëpp mu jaar ci ñoom ñun daal li ñuy wax mooy na réew mépp jàpp ne tey la yow ma Badar tey la Hunaynin tey la Uhud kenn ku nekk Allahu akbar nga yor jaasi nga yor kurpeñ nga yor dërëm nga yor te it innamal amalu bi niyaat dama ne ki joxe dërëm ak ki joxe milliard benn lañ bu doon ci lislaam ba luñ jàpp ci xare bi buñ demee kër ga jullit ñépp a koy bokk duñ wax ne kii moo yoroon fetal wala kii moo yoroon jaasi moo tax lii sant nañ réew mi yëpp gërëm leen li ci des incha allahu rabbi su yëf yi passé danañ dajale presse bi jël télévision yi waxtaan ak réew mi ci li ñu def di leen ci gërëm di leen sant ci confiance bi nga xam ne am nañ ko ci suñ jëmm yu xeebu yi te jubadi vraiment ba defal ñu lii ñu ngi ñaanal yàlla jàmm ak sutura ak teraanga di ko ñaanal sëñ Maxtaar ak sëñ Fàllu wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëriñ Yaas